rek xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg seen chaîne télé bu njëkk ci wàllu caada di la 2STV di am mbégte lool nag ak bànneex euh, ci dellu siwaat fas yéene àndaat ak yéen ci biir seen émission kër gi ni ñu koy defee saa su ne mu amuk coppika tuut tuuti nag ndax euh, actualité oblige comme ni ma koy waxee saa su waaye ñu ngi nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax a baax di julli sëlmal sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari wayjur gërëm sunu wasila gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag ci maladie di ci hôpitaux yeeg ñu weyaale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem kilifa diine yépp ñu nuyal leen ziyaar leen ñaanal leen jàmm ziyaar itam sunuy kilifa aada ñaanal leen niñ leen dénk ñu mën ci dara waaye biir réew ak bitim réew yëgal ni ku fa nekk rek mi maa ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziyaar di la kontaane di jéglu nag retard bi nga xamante ni nag am nañu ko waaye nag xam ngeen rek ni mu demee waaye nag tey man ak yéen ba 18 la parce que spécial Saint-Valentin la ñu wax te tabarkàlla macha allah bu ngeen xoolee plateau bi ni mu mel rek ak sama réalisatrice bu mag bi rek di ngeen xam ne tey dara du lewet euh, ni ñu koy defee saa su ne man góor dama koy jox cër ba tax na rek damay nuyu caamaas euh, di ko ziar di ko bàyyi mu nuyoog mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni euh, bëgg nañ ko lool ci plateau 2STV rawatina seen émission kër gi. waaw soxna Mbaye danay sant yàlla bu baax julli ci yonent bi. Eh, di gërëm suñu ñaari waajur. Mhm. di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay. allahumma amiin eh, di ci jiital nuyoo bi nag sunu sëriñ Seydi Aboubacar Sy. Mhm. di ko ñaanal yàlla jumaam ji nga xamante ni nii da koo tàmbali. Mhm. yàlla na ci julli. amiin ci barke yonent bi yàlla na ci julli. amiin waay eh, di profité nuyu sëriñ Mountakha nga xamante mooy bërëm mbégte mi. wax dëgg yàlla nga xamante ni boo ko séenee rek sa di sedd guy dëgg la muy bërëm di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ci barke yonent bi mm-hmm. di nuyu nag gi Eh, di ko du nuyu waa kër gi wax dëgg yàlla yàkkamti woon lool ñëw ci émission bi nga xamante ne nii mooy émission bu baax bi mooy émission bi nga xamante ne nii réew mépp moom nañuy déglu waaw ah, di ci profité nuyu El Hadj Ndiaye di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal taxawaayam ah, soxnaam yàlla guddal fanam ci barke yunti bi képp koo xamante ni daal yaa ngi ci biir kër gii mm-hmm. di ci wut loo am mbaa loo xam mm-hmm. yàlla na sunu borom defal teraanga àddina ak at àllaaxira di ci profité nuyu waa na bàyyi la nag nga doxal. ma doxal de. ndax gis naa ci table ji loo xamante ni nii maara de tali. nii nii nii lii dinañ ci ñëw ci kanam. <laughs> kanam lay doon. ci kanam man dama ko bëgg dama ko doon wër. tabaarkàlla macha allah ma koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama sœur bi nga xamante ne day liggéey ak moom muy Alima sama doom nekk fële Sen TV alors ma ñëw ci yaa Seyda tabaarkàlla allah dem li ma jaaxal mooy ñun ñun ñi nga xamante ni dañoo saay rek ñun indi wuñu dara yaa sayda moo ñëw ki bagaasam yaa sayda nuyu naa la ziar la bàyyi la nga nuyoo mbokk yi incha allah auzu a mina a rajim mhm. bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp di la mhm. fay nuyoo Soxna Mbaye mhm. di nuyu ñu bokkal plateau bi ak waa télé bi yëpp di ko dalee ci suñu papa El Hadj mm-hmm. ak soxnaam ak ñi nekk ci ginnaawam ñëpp macha allah. ndeysaan ñu ngi nuyu ñëpp daal soppe yeeg xarit yeeg am di jàmm yeeg. Mm. di nuyu waa Pikine fa ma jógee sama yaay booy maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. di nuyu sama waa kër gépp. Mm-hmm. Paa nuyu naa la bu baax a baax ziar la. maa ngi nuyu daal ñëpp. ak macha allah bàyyiwuma kenn. Mm. waaw monsieur dama koy nuyu. <laughs> maa ngi koy nuyu di ko def monsieur Diagne yërëm naa ko trop. un gros coucou mi ngi ba nuyu waa Italie yëpp Europe. Afrique Sénégal fépp rek fu soppe nekk xarit nekk fa yëgal ne maa ngi lay jox sama loxoy xol di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu lay fay bu baax a baax a baax yaa Sayda madame ñu mhm. dalal ko moom tamit ci plateau bi mhm. mu yëngu ci lépp loo xamante ni ci feemi jigéen la waaye keneen koo xamante ni itam ci feemi jigéen la nag euh, muy Daba Mbaye mhm. Daba moom tamit euh, jóge fële ca Sénégal 7 defe naa suma juumul noonu la non Sénégal 7 waaw Sénégal 7 <laughs> kay moom tamit di yëngu ci bagage yu mel nii dalal ko ci émission bi euh, di la bàyyi nga nuyoog mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan waaw euh, soxna Mbayang maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. maa di la ziar bu baax a baax a baax di am contentement bu baax bi ma dalee ci plateau 2STV yi. Mhm. nga xamante ni ni fii sama kër la. ndeysaan ndaxte sama baay bu baax bi El Hadj Bekaay Mbaye. Mhm. moom dafay nekk ak mhm. sama rakk yi du mbay di nuyu waale sama yaay jooju nga xamante ni moo tax jooju ma yaay muy Mbaye Bekaay. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. di ko ziar di nuyu ñëpp ñu toog ci plateau bi. di leen bëggee. waaye nag di am contentement ci dal bi nga ma dalal tey fii ci 2STV am na solo waaw eh, nuyu waa Sénégal set mhm. dama jóge di leen ziar di ñaanal Pape nga Ndiaye yàlla yàlla guddal fanam suñu PDG di nuyu madame Ndiaye aussi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax nag tey fii moom dara du fi yomb du yomb de déedéet am na solo dara du fi yomb tabarkàlla macha allah ndax jàkkaarloo lay doon. Mhm. man du ma sax jox kii kàddoog yooyu parce que confrontation la. <laughs> te nag li ko waral mooy euh, Saint-Valentin dañu wax càmmas euh, ne mbëggeel alors dañ koy ànd ak mbokk yi nga xamante ni bëgg nañu jaar ci 88 628 14 13. le temps que ñu xaar ki nga xamante ni mooy Galas Bongo moom tamit ci yëf yi la bokk ndax nit ku siiw la te bëgg nañu xam ñu siiw te itam naka la ñuy dundee mbëggeel ndax yomb na wala yombul euh, yaakaar naa ni loolu dina am solo man dama lay dugal ci mbëggeelu démb. Mm-hmm. est-ce que mook mbëggeelu ñii ñoo yem waaw wala déet. bokkunu de. mbëggeelu démb ak ñii. yaa ngi mel ni kuy wax yàlla ak yàlli. bokkunu bokkuñu bokkunu. lu tax bokkuñu. bokkuñu euh, euh, doxin. Mm-hmm. bokkuñu jëfin. Mm-hmm. nangu nga sax bokkun. nangu nga nangu nga sax bokkunu. bu njëkkoon jigéen da doon waxtaan ak njaganaayam. waaye léegi amatul amatul. jigéen ku muy waxtaanal léegi. Facebook. Twitter. d'accord ngeen ko. Messenger. Mm. WhatsApp. Instagram. Instagram ak live yi ci guddi gi. live yi ci hmm. bu njëkkoon boo gisee eh, jigéen bëgg ko. waaw am pour nga am sañ-sañu dem ba ca moom. Hmm. problème lay doon. Hmm. lu tax. très bien. da ngay gàcce. da bañ ko la toroxal. da bañ ku la sëdd ci gàllu xaj mm-hmm. balaa nga ku balaa ngaa dugg ci moom di nga ko nit ci facette bu ne mm-hmm. di nga xool doxinam xool waxinam mm-hmm. xool ba xam ak ak téye gi ci moom xool ba xam daraa gi ci moom dëgg la balaa nga ciy dugg sax mag ñi sax boppam ñoo la naan ah kii baax na doomi xam nga ko jigéen ju baax la waaye loolu funtul nii loolu amatul dëgg la funtul dañuy dem rek di taañaañal dañuy taañaañal moo tax bis bu yàlla sàkk ñu dugg ci lu mën bis bu yàlla sàkk ñu dugg ñu dugg ci loo xamante ne da lay leen na yow lii mënuñu ko waaye bu fekkoon danoo indiwaatoon démb waaw ni xale yi doon bëggee ñi mag ñi doon bëggee nit tey ko buñ ko doxalee ba léegi mun naa ne sëy yu bëri du am problème dëgg la sëy yu bëri du am problème dëgg la waaye nag boo boo boo bàyyee sa yoon waaw weneen yoon woo jaar dajeeg borom gis loo fa gis yaa fa yaa ko yóbbee sa bopp da ngay jël da ngay jël dangay jël loolu rek laa xam ne wax dëgg yàlla nit ñi waroon koo bàyyi xel am na solo te te mm. am loo xamante ne nii foog nga koy xam ci nit kii mooy bu njëkkoon bu la sa bu la sa nijaay ne woon demal kër diw. waaw nuyu ji fa. waaw nekkul rek ne dalaa ne demal kër diw nuyu fa déedéet. Mm-hmm. xam nañ ne am na la fa nekk. te bëgg na nga xool ko xool na la lay dalale xool na la lay na lay comporté ak yow. Mm-hmm. loolu loolu boo fa demee nag. Mm-hmm. boo ñibbisee da lay laaj noonu dund ak moom. dëgg la noonu nga dund ak moom. ah ba ma demee de papa de may dalal na ma. jox na ndox mu naan. waaw jox na ma añ. waaw wax dëgg yàlla ba may dem sax papa mu jigéen dem ma moo ma gunge. waaw te xam na ni kooku la tax a dëgg la. ñoo xam ne kii kat bu ko mayee kii. Mm. dëgg yàlla jàmm rek lay am ci moom. war naa mën a ne. war naa mën a ne. foofu say mbokk nga dugal. foofu mu indi naa mbokk waaye nag indi naa jàmbur. waaw ndax man mii takkayuma ci mbokk. dëgg la. waaye nan nan nan nan ma mayee soxna. waaw wax dëgg yàlla wuuti naa ni ma ni ma mayee soxna man. ah yow niñ la mayee wuute naa ni nga ma mayee man. Thiamas <laughs> eh, daf dégg naa ko lu mu wax. waaw. waaye ba tey it yorinu démb. ak yorinu tey dafa wuute. dëgg la ndax yoruñu démb. Mm. sunu bàyyee ko daan def. Mm-hmm. yërëm. Mm. di dimbali suñu ndey yi. Mm-hmm. ba tax ñu jur lu baax. Mm-hmm. waaye tey li ma gis xaw ma ko. dëgg tey daa am jantal paa. am jantal garan waaw yoratunu. de dugg. mi ngi lay tituwaay de. Ah, ba démerde amee ba léegi jigéen ñi danoo sonn. ñu xool fan lay. fan lay sànni ay waxam. <laughs> soxna Mbayang. waaw démerde toj nga dëkk bi. démerde démerde. ak da xëy. Mm-hmm. sa boroom kër romb la dem. Mm-hmm. ni la démerdeel. ngay tëste si suba ba ngoon. Mm-hmm. di dugal loxo di dugal tànk. bëgg a sëy bëgg lu baax bëgg bu wàccee nga tegal ko ginaar. wala bu wàccee nga tegal ko lu neex mu lekk. xamatuñu loolu. bu njëkkoon suñu yaay dañoo yërëmoon suñuy ndey bu ñuy taxan ñook ñoom mm-hmm. bu ñuy root mook ñoom dëgg la bu ñuy togg ñu ñëw di leen jàppale di leen uppal di leen dimbali mm-hmm. ba tax ñu sakkal ñu tey doom yu baax dëgg la tey jii nag dama koo gisatul tey góor ñaa ngi dóor góor ñaa ngi xas mm-hmm. góor ñaa ngi maltraité góor ñaa ngi demerdeel ak lijjantil te loolu xoolal noo def te loolu mbëggeel amatu fa dëgg la mbayang mais jamono yi passé la wala néew doole la. ñàkk mbëggeel day dugg. Mhm. ñàkk yërmande day dugg ndax góor bu la yërëmul rek dalay teg lu metti. wallaay dëgg la dëgg la. fan yi passé damaa dégg lu doy waar ci sama biir émission man. muy. muy góor gu soodee jigéen lu raar. lu kenn mës a gis. góor gu soode jigéen. waaw. est que. góor gu xool jabaram ba mu neex ko mu soode ko. lu kenn mës a gis lu doy waar lu yéeme. nga xam ni keroog taxul wala euh, euh, man dama ni. soxor la mm. mbayang soxor la fiiraange warta tax soode am mbayan góor googu ñu soode ñoo ko jur jigéen jooju ñu soode jigéen jooju ñu soode waaw moo jur ku góor ki ko soode mm-hmm. jigéen ay jur parce que jigéen yaay la mënta takk sëy waaye mooy jur ki koy def mënta jiite jàkka waaye moo jur ki koy def mm-hmm. mm-hmm. kon ñu delluwaat xel ci ñun bu baax yërëm ñu jàppale ñu yiir ñu te ñu am na solo fi fi mu dugg am na solo. 88 mhm. euh, le 628 14 13 mooy numéro bi nga xamante ni moom la ñuy àndee ak yéen loxo roxoya laaw la cat <laughs> li nga tax ma di la wër <laughs> euh, euh, mais yooyu yëpp dafay daal di dugg ci tànn. Mhm. est-ce que yaa sayda est-ce que xale yi ni ñuy tànnee est-ce que du moo leen di yóbbee ci ñu dem ba soodante di am. waaw alhamdulilah. Mm. kontaan bu baax ci émission bi. Mm-hmm. ak laaj bi. Euh, dafa di mbëggeelu démb ak tey buñ ci ñëwee. mënuñu mm. tollale ñaar yëpp. ndax démb suñuy bàyyi la woon. suñuy mm. yaay tey ñun la. Mm. da ngay gis ne àdduna dafay dox. dafay dox waaw te àdduna buy dox dañuy dox di ànd ak moom. ndax bu njëkk. dañ la daan takkal mais tey dañ naan la demal xool ndax dañuy bañ déception yu bari ci biir. Mm-hmm. mais bu ñu delloo tuuti rek dem ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. buñ ci demee rek. jël sëy teg ko ci rek. defe naa duñu juum. duñu mm-hmm. fa xastalu mm-hmm. mais dañuy bàyyi yu bari. au mhm. dernier moment la ñuy ñëw. Mhm. bu problème amee rek la ñuy dellu ci diine. dëgg mais tant que yaa ngi am jaamu ci sa biir néegu sëy rek du ñu dem ci diine. ci diine luñ ci dem mukk ndax dañuy dem ak suñuy xel. dañuy mhm. dem ak suñuy xalaat. topp xarit yi topp uh, yu bëree bari comme ni nga ko waxee Facebook beeg yooyu. ak dégg naa kook ma def kook nàngam ak sàngam. te uh, sëy dafa nekk loo xam ne nii jaamu yàlla la. te yonent sallallahu dafa wax ci hadis bu wér. Euh, macha allah man xadis bi dama koy sawar di di di waxtaane tout le temps. Mm-hmm. mu ne jigéen ñi mu ne jihaadul maratu xusnu mm-hmm. mu ne jigéen. Mm. sa rafetunu sëy. Mm. mooy sa jihaad. sa rafetunu sëy mooy sa jihaad. jël mbokk moomu ci ligne euh, mbokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay ziar. Euh, tur bi ak fooy wootee. man maa ngi bàcc li ñu yëkkatil ma kàddu gi tuuti. maa ngi tudd Seynabou. Se yaa ngi tudd. Seynabou na Badiane Seynabou. waaw. Seynabou da nga bëgg a participer. bëgg a participer. na bu yow rek la ñuy déglu. oh. ñu jégalu ko bu baax a baax di ko xaarandiwaat mu dugg si waat yaakaar naa ni jigéen ju ne euh, sa biir say caamaas nee na mooy sa jihaat. Mm-hmm. kon euh, jigéen ñi dañu war a jihaat ci sëy yi mhm. mais ndax ndax ñi ñuy jihaatal jar nañu jihaat yéen ñii très bien laaj nga question boo xamante ni nii waaw wax dëgg yàlla ah, dama ci am mbégte pour tontu la loolu mhm. mais sama dafa am fu mu dugg sànq muy fan daa jël lépp bu duggatee fu la neex bala mu laa ci mën nga ko tontu débat la daa jël lépp waaw ba ko góor ñi waaw daa jël lépp ba ko góor ñi ba max ko góor ñi yéen a nag waaw de jigéen dama koy comprendre. waaw ndax boo toogee def sa greffage. Mm-hmm. def sa robe bu taay maam def sa rosa 24 heures bu la neexee toogal say jigéen. <laughs> waaw waaw waaye dafa am loo xamante ni nii. mooy. damaa bëgg nit ñi di ko bàyyi xel. Mm-hmm. soxna si léegi léegi dafa dafa dafa dugg fu am solo. mooy bu nit ñi jàkkee rek. Mm-hmm. nañ delluwaat ci diine. te pourtant avant ñu jàkk waroon na ma nekk ci diine avant ñu dellu. bu fekkee dëgg la yàlla bëgg. góor ki dafa am ñaari way dencante yi. waaw dafa am lu ku ci nekk dafa am loo war teg sa moroom mm-hmm. loolu bokkul ak mbëggeelu bërki démb ak mbëggeelu tey. dëgg la yow mii toog. waaw yow mii toog. waaw doo gis mandaar yi moo xamante ne nii góor góorul yettuwul. Mm-hmm. taxawaal la ko tendefe la ko g di g yoo xam ne kenn xam lu mu doon. Mm-hmm. nga jël waaxu sa bopp dugg ci moom. lu la fa dal yaa ko fa teg. dëgg la tànnin ba. est-ce que yaa ngi may dégg. maa la dégg yaa ya est-ce nga xam. di nga xam lan. ndax nit ki réellement moom moom nit ki ni mu ni mu mel. ni jigéen ñi amee surprise noonu la góor di amee surprise. xam nga dafa lëndëm dafa lëndëm. rawatina liñ won foofu la waxee waaw waaw dañuy signaler gauche jàdd droite. waaye nanu signaler gauche ja ja taxaw ci digg bi problème bi nekkul foofu. Mhm. xam nga fan la problème bi ne. fu mu ne très bien. waaw bu njëkk dafa am lu lu ñu lu fi fekkoon. Mhm. pour loolu ban ko bu fekkoon nañ ci doon dox ba suñu jono yàlla tey. Mhm. amaana lii am tey du am. maa yéen a ngi ciy dox. est-ce xam nga ni bu njëkkoon ak léegi ba léegi problème da daan am démb xam nga léegi lu tax problème yi nit ñi di ko xam. Mhm. réseaux sociaux yi moo tax. Mhm. léegi dañuy xam lépp tey jii comme li kii wax nii ki soodee jabaram adduna bi yëpp dañ ciy jot te pourtant mënoon na ni amoon na démb waaye lu tax duñ ci jot mooy réseaux sociaux amul woon internet amul woon te léegi internet bi toj na rek lu mënti am du euh, euh, siiwee noonu c'est que ki la war a divorce da daan am de. waaw dindi ko. garam bu <laughs> divorce ci ligne bi Thiamas <laughs> <laughs> salaam. waaw <laughs> nañ ko bàyyi mi ngi ñëwaat. nga ne grand boobu sonal la man grand boobu sonal la ma. c'est man ki ma bëggoon mu gën laa dooleel daf dafa yegg seegul muy galas bongo. déedéet à tout moment man ngaa <laughs> defanteeg ñoom <laughs> looloo tax may indi la caabaas ay ca. Euh, euh, soxna si foog nga dama bëgg rek euh, ñu waxtaan ci xel tuuti. waaw. gis nga ku fàttal la la fal. Mm. Mm. soog ko day yomb. Mm. dëgg ko démb ak bërki démb réseaux sociaux amul woon. dëgg la. waaye ñu doon baax démb ak bërki dem ba tey ñu ngi baax. loolu am na ñu doon amoon ñu doon ñu doon sëy ci mbalaanu sutura. Mm. ba tey ñu ngi koy sëy. te réseaux sociaux am na lépp am na. dëgg la xamal leen dara. dëgg am lu war a lu waral loolu njëmbat maa baax. njëmbat ma moo baax toogit wa moo baax. Mm. ca bu fekkee nag dana faa bàyyi loolu. waaw dana faa bàyyi loolu. waaw xool li jamono méngool nee na dañ cee ànd ak moom. Mm. bis bu yàlla sàkk jamono wan nu boppam Mhm. loolu am bu fekkee danoo waxante dëgg te yàlla rek tax dëgg la bu fekkee danoo bàyyi li fi mag li fi mag ñi liggéeyoon mhm. ñu topp ko ne ne non jamono avancé dañuy avancé ànd ak ñoom mhm. bis bu yàlla sàkk jamono wan nu boppam ndax jamono ci boppam day mbase waaye yéen xale ñaareel ba li nga xamante ni mooy téléphone ba muy ñëw ci ñun kenn tàggatuñu ci dëgg la kenn jàngaluñu ko duñu xëy suba ñu ne ko yàlla kon boo ko téye war ngaa xam carrément nu ko koy utiliser am déet ñàkk koo xam wala ñàkk ñu cee bañ a tàggat wala ñàkk ci bu ñu yëkkati suñu naan xam fan muy tag hmm. moo tax riir gii di dem mu ñuy topp hmm. te dégâts yi mu créé moom moom téléphone pourtant yoo xamante ni waaw internet baa nga fa hmm. réseaux sociaux baa nga fa billaahi boo fa duggee fekk fa sëyum démb waaw loolu ci yar bi la ak ah? ci éducation bi la ma waxaat ñaareel ba euh, soxna euh, soxna si waaw tey ñun bu ñu demal am am sañ-sañ dem di wuti di wuti euh, soxna waaw première heure bi moo xam moo lan demal koo tànn indi. sëy dafa am loo xamante ne nii mooy njëmbat ma. foog mag ñi teel cee jug. dëgg la teel cee jàpp. Mm, teel cee toog. teel laa xamal ne bu yëkkatee sa tànk fa nga jëm. bu ci magi amul bis yàlla sàkk nga dugg ci lu. waa léegi jigéen ñu ci bëri ci ñi ma ko sañ a wax. waaw nangutuñu kër goro lu war a lool. Mm-hmm. indépendance la bi sonal na leen. waaw fóot bi fóot bi fóotal seen yaayu jëkkër sonal na leen. Mm-hmm. paase ba sonal na leen. Mm-hmm. waaye léegi xam lu ñu bëgg toi seul moi seul waa tax moo tax tuwaasal moosal foo ko déggee moorsal booy dee <laughs> la fa jàpp ba nga nuyu sa borom kër. mais ñaan ñi tolloo doole. waaw waaw dama la ñaan ñi tolloo doole. waaw wéetaay baaxul wéetaay baaxul. baaxul sax ci mag wasoon ci mag ci gone. dëgg la te na juun def loo xamante ko faa def. bu fa mag toogee. am na ci loo xam ne war nañ ko ko mën a rusé. mais wéetaay lu mu wéet wéet wéet wéet wéet. waaw yërmande dafaa war a am dafa dugg ci lu am solo. Mm-hmm. dañu sëyu démb. waaw sëyu sumeeku sonal ma. dañ ko daan téye. sumeeku sonal la ay mag téye ko waaye defe naa ni. Mm-hmm. Euh, booy jëli soxna. waaw nee nañ doo jël nday doo jël ka ngay wuti doo ko jël. ndayam ngay takki. wallaay bu njëkkoon loolu lañ daan wax. lañ daan wax takkuma ko ndayam lay takki. waaw ndax dañ naan dofu kër ga mooy jër nit mooy jur nitu kër ga. waaw. boo ñëwee ka nga gën a ka gën a nangu ca kër ga. waaw ca doomam ngay jubali. waaw léegi ñoom dafatuñ ko. xam nga lu ñuy wax. lu ñuy wax yu bees yi xew. mooy yi bees xew. waaw dama ciy jël. loolu la ñuy wax ñoom léegi. yi bees yi xew ñoom xale yu góor yi waaw. lan moo bees. waaw déglu ma rek ma ñëw. continue. <laughs> dama laa déglu sànq ba nga ñëw. continue di góor li mu gën a bëgg ci àdduna mooy lu bees. waaw li bees mooy takkatu leen ci famille bi. li bees mooy jëlatu leen doomu diw nga xam ne ndeyam saykat la woon. dëgg la da ngeen ni gis ki ngeen xamante ni moo leen gënal. ci dagg bi baax. ki dagg bi baax ngeen xool koo xamante ni da nga ni kii kat xemmem naa ko naa ko jël ak ci li mu yëngu ba pare naan damay jël soxna soo xamante ni day ut appartement ma nekk fa di fa lekkee yéen loolu ngeen xool muñ ba dee ak yar sunuy doom <laughs> eh. ak ama fenne eh. ah lañ eh, nekkee arrêté non mënu maa arrêté dama leen a xam dama leen a nga xamante ni ñoo namoon coow li ñëwaat ma la wax kuy màcc sam tàngal. waaw naan la ñun jigéen ñi eh, eh, déedéet. Ah, ah, euh, yow jàng man ak lu mënti <laughs> xew rek daa mel ni waa faraluma kenn mais damay wax rek li nga xam ne nii moom la diine wax uh-huh. mais góor am na droit buy takk soxna uh-huh. wut ko ci ñeenti critère uh-huh. mooy na rafet na diine na alal na juddu. Mm. waaw yeneen salaay salaam nee na bu yëpp mënee ñàkk. waaw bu diine bi moom bu mu ñàkk. bu mu ñàkk ndax nit ki bu xasee ba am diine. waaw leneen dina dina sóor lu baree bëri ci biir néegu sëyam. dina sóor ragal yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. ndax chaque jour rek su bëggee faxastalu sax mm-hmm. dina xalaat ne ah man de lii la ma yàlla digal. man lii la ma sama sang digal. ma daal ma daal di ciy dox. mais buñ jëlee lépp teg ko suñuy su bakkan rek wala werante bi nii xam nga mm-hmm. tey ji mën nañoo toog ci plateau ba jug duñ ci am benn jàngat nekk tey mais bu ñu indee jàngale yonent sallallahu teg ko ci table bi xool li yàlla wax ci sëy wallahi azim bu ko ku nekk góor bu bu respecté li nga xam ne nii mooy droit am mm-hmm. jigéen respecté ay devoir am ñoom ñaar ñëpp dañuy nekk ci jàmm mm-hmm. nekk ci salaam mais bu góor bàyyee bàyyee moom li mu war a def ba pare di di laaj ay droit am du sotti ñu jël ki ci liñ bi ba noppi caamaas ne ko allo te yow laa koy dénk salaamaaleykum <laughs> Abdoul Ndiaye bàyyil ma xel caamaas mii ci sama wet salaamaaleykum <laughs> waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay bi te ngaa bàyyi télé bi te jàpp ci rajo bi ci téléphone bi. télé bi tudd. man Lamine Mbuub laa tudd. Lamine. Mbuub la. Mbuub Lamine Mbuub yëkkatil kàddu gi tuuti. bàcc li xoolal ñu téléphone bi. Lamine noo def bisimilah. oh, oh bàcc li nañ ko xool téléphone bi yàlla na ñëwaat. ñëwaat ñëwaat eh, waaw. kii. waaw man ak moom mën na noo def yow. waaw kii ma na noo def. <laughs> mais kii mais kii mënu moom. li tax mënu maa def moom dafa am loo xamante ni du ko fii bëgg a imposé. Mm-hmm. te loolu du dem. c'est que Thiamas dafa triant bi kii ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek. damay rangé dafa am beneen. merci damay rangé wu. dama dafa am beneen xëccante xam ne góor liñ ko sant mu tànn ko wax naa ko. mais jigéen tamit biñ ko tànnloo. waaw dañ ne ko wutal ko am jom. te am diine. waaw <laughs> te yërëm la. waaw ndax jom bi ak diine bi ndax diine nit ki su ko amee toujours rek mooy balaa muy def dara day soo digganteem ak boroomam ndax ki nga xam ne day jël jabaram soode ko mm. xalaatul dara mm. jigéen bi nga xam ne nii day def naka su noonu moom mm. tamit mm. bu jëkkër ji wàccee du ko lijjanti du ko faale du ko xool du ko toppatoo ndax defaluma duma ko defal koo xoolul digganteem ak boroomam ndax lu ci mënti nekk rek nit ki war ngaa mën a sóor def te yàlla rek tax ndax am na li mu wax léegi ñi daan sëy démb ba léegi ñu ngi sëy mi ngi am ba léegi am na ay xale yu ndaw yu am jom responsable respectable toog fi fi ñu leen fi ñu leen dëj. mais jom jooju lu am lu am fulla ak euh, fayda. daa jom jooju dama ko bëgg a jël ci góor ñi. Mhm. Euh, ndax góor moo war a am jom dem uti mais léegi fifty fifty moitié moitié moo xew. Mhm. ñu jël kii ci ligne bi ba mhm. noppi allo. salaamaaleykum soxna si na nga def. maa ngi sant yàlla baax soxna si say ziar tur bi. naka liggéey bi di leen woo Fouta si département Podor. Fatou. Sadio Sadio Diallo Sadio Diallo. Sadio Diallo. waaw maa ngi dëkk département Podor dëkk bu yokk Tulle Gaale. Diallo Diéry yow rek la ñuy déglu sa participation. macha allah sa waxtaan bi rafet na neex na trop. jërëjëf. macha allah alhamdulilah yàgg seetaan nag yokk sama sëriñ bi fi toog sa lépp. ndeysaan Thiamas. di leen ñaanal jàmm ak salaam. amiin amiin ngeen ngeen yàgg. allo. waaw dañuy yàgg ci serveur bi ñu ngi koy jégalu bu baax a baax di ko ñaan na jéemaat bëggoon naa ko laaj ñoom ñi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk yooyu dëkk tukulóor yooyu làkkat ni mu daan jëlee soxna bu njëkk ba ndax moom lay jëlee ba léegi loolu bëggoon naa ko koo laaj waaye man li ma jaaxal mooy nee naa leen table ji li fi tege yëpp yaa sayda moo ko fi indi macha allah <laughs> euh, kii la en attendant lii bassin la pour bain intime <laughs> <laughs> man man banaa àddina salaamaaleykum indi ma yaa sayda rek allo. yaa Seyda laa bëgg man allo. Euh, ñu ngi koy xaarandiwaat. Mhm. Euh, mais mu mel ni que euh, Thiamas. Mhm. loolu yëpp dañ ko wax ci xeetu xeetu tànnante bi waaw kenn ngi noonu ci ligne bi ñu jëlaat ko bu galas bongo yegg see rek nañ ma ko indil. Mhm. mbokk asalaamaaleykum. allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziar. <laughs> sëñ bi waaw. tur bi la tur bi wala. Aminata ah Aminata maa ngi jégalu sa baat daa mel ni bos. waaw euh, ba dee. <laughs> ñu ngi lay ziar bu baax a baax Aminata sa participation. waaw sama participation man dama bëggoon wax rek ne. waaw. Eh, eh, oh, eh, ndaw si nekk à côté li mu wax dégg naa ko waaye jigéen ñi li ñuy laaj. xanaa dafa fàtte 3V voyage villa voiture. jigéen ñi jigéen ñi tey moom la ñuy laaj. village. voy 3V. village Thiamas dégg nee na jigéen ñi loolu la ñu laaj trois v soo ko amul duñu la takk. duñ la takk. waaw te bala nga takk jigéen ñi amuñu lool te ñu ngi takk. xaaral nañ ko may ah mu baax na ci. Mhm. waaye jigéenu tey xale tey yii. waaw mèche ba ci digg mèche ba ci digg ginnaaw ko la ñuy laaj ak 3V. waaw. village. voiture voyage. village voiture voyage mhm. tey moo amatul. moo amatul. waaw merci beaucoup. Aminata kontaan nañu li ngay indi am na solo. 3V la xale yi jigéen ñi di laaj léegi góor ñi di laaj ci looy yëngu kon sëy bi fan lay demee <laughs> mais mais li ma jaaxal mooy euh, yow yaa ma tardel nii waroon a ubbi émission bi booyal ko fii ba pare rek léegi nag daa dem toog ba heure bi day sëñ Galas day boy kon ma bàyyi la nga nuyoo wala day sama gars yi dañuy topp si da ngaan gaar day ba équipe bi laa na Cheikh Bongo suma rak suma xarit ah, nekk nit ku baax waaw bëgg ma trop nag waaw nekk suma rak nekk suma frère mm-hmm. su may jógee rek day jóg ànd ak man ndeysaan nekk nag koo xam te ne macha allah mm-hmm. yàlla moo def mu bëgg ma dëgg la nekk sama rak dëgg la si man rek te du ma rek kon su ma jógee rek mm. gis nga tey innaa bongo yeeg yooyu yëpp ñëw na fii non rek lay tey tey ngay dégg dëgg ñoom est duñ topp si nii jaaree nii ñëw sama ginnaaw en attendant dugg <laughs> en attendant mais mais mais Galas euh, nga nekk nit koo xamante ni yow ku siiw nga ndax mbëggeel ak euh, bëgganteek ak célébrité yomb na waaw nag bëggante ak célébrité mhm. yombul de dëgg la bëggante ak célébrité jox ma micro boobu waaw yombul waaw li may wax nii caamaas xam na si dara waaw sama jigéen yi ma fekk si xam nañ ci dara xam nañ ci dara waaw billaay dafa metti muy góor waaw bu dee da nga nekk góor. waaw di seeg jigéen. waaw day metti boo nekk artiste. Mhm. boo nekkee jigéen. Mhm. di seeg góor. Mhm. day metti boo nekk artiste. waaw parce que des fois nga tëdd 5 heures du matin caaman léeg-léeg mu ñëw 6 heures. waaw léeg-léeg mu ñëw 2 heures du matin te liggéey bee koy waral. mais ci kaw war na war na mën a yomb nag su compréhension amee. mais nag des fois nag ñu yónnee leen ay message yoo xamante ni euh, comme tey jii ma toog rek ku bëgg a jot tey jii Thiamas la nga bëgg a jot euh, euh, Galas Bongo jëlal numéro bi nangam nga dem ba deux heures nit nit nit nit yónnee la message te naan naan damaa juum. waaw loolu fi ñuy arrivé des fois. te nag da ngeen a tëradi nag ma ñamal ma dara daal ma temporiser sama plateau. <laughs> koy dugg kër jàmbur daga naan bañ na la enterré nga dugg nga dugg ba sa biir naan bi gëtti ni gëtti e suma daa góoba seet si e eh, suma daa góoba seet si da ngaa nuyoo rek. Mbaye dama nuyoo rek te dama la wax léegi nii la. maa jom mi dama la wax nii la. waaw gis nga ñi ne sa ginnaaw nii. waaw boo gëstoo di nga gis kuddu yi. ñii bëgg naa leen de. non dama ni dama lay wax loo xam te lu mel ni bëccëg la. waaw tey ngay dégg dégg tey émission bi jeexagul de. jeexagul seexa ngi nii borom faas. waaw nee ko jëlal demal fobal demal. duggoon ci yéen. yaa génnaat ci yéen man maa génnaat demaat leen ne Mbayang dafa am lu ma gis léegi ci fàllu mu jaaxal ma lool. waaw te bariwuma lu ma ko gis ci bongo yi. mooy mooy lan. kuddu gi fàllu kuddu lan la lii maa ngi koy doog a gis. waaw xam nga kuddu gi ñu ñu leen ne man maa génn ci yéen daan <laughs> kuddu gi lu mu doon. Eh! <laughs> jox ma kuddu yi foofu rek seex jox ma kuddu bi. Cheikh Bongo jox ma kuddu yi looy doyee kuddu yi eh looy doyee kuddu yi kuddu yi loo koy doyee boo ruyee Cheikh boo ruyee ni ñu barkeeloo baax na waaye lii lépp li ko waral du dara dul ambiance Saint-Valentin wax si kuddi yi waaw la lu bees lu génn la man bongo laa daan dégg waaw day am di nga fekk ñu ci débat suñu débat mbëggeel nga jaar fii waaw dañuy am kuddu waaw dina am fourchette waaw dina lépp lu waral loolu lu bees innové rek waaw kon lan la nit lekkee ñu ñu jëlee bu leen jëlee kuddi yi jël fourchette yi lan la nit ñi di lekkee ñu dellu cosaan raxasu ñaari loxo mu sedd wicc wax nga lu baax 88 la 628 14 13 man li ma dugg tey yëpp na ma doxee baal ma dégg ma maa fi def yii waaye nag euh, macha allah rek euh, ku xam euh, coow li coow na mu daan demee xam kër gi na mu daan demee nag ma baal nag dem yi damay mag te damaa gaaw a dem damaa mënta mujj tam mujj tama ndax damay ñeeño looloo tax donc ñu continuer war rek galas waaw célébrité nga nekk koo xamante ni da nga célèbre mm-hmm. nekk koo xamante ni tabaarkàlla macha allah dëgg la nit ku siiw nga dëgg la ni ko waxee day metti mm-hmm. metti na ci ku góor ku siiw metti na ku jigéen ku siiw. waaw xam nga xam nga xam nga tey am na suñ c'est que xale jigéen dañ leen mën a topp nag yéen tam. ah Thiamas. Ah, ah, <laughs> Thiamas Thiamas borom Garaayef Arafat. waaw. loolu xale jigéen nan la bàyyi. nan la bàyyi Thiamas. nan ko bàyyi moom Thiamas ñaata femme nga yor fi ne. alhamdulilah ban toll ci loolu. léegi léegi Adja Mbengue. waaw li nga wax yëpp dëgg la. <laughs> mais mais dama bëgg nuyu. ñi ma fekk si plateau bi. dëgg la. parce que sama sœur ñoo fi nekk. Mm. sama jigéen. ndeysaan muy sama xarit nekk nit ku baax. waaw yaa Seyda tamit maa ngi koy ziare. Mm-hmm. di ko nuyu. caamaas mm-hmm. mii. Mm-hmm. li ma ko fekk fi dama kontaan ndax sama xarit la. dëgg la nekk sama xarit boo xam ne dafa ñàkk ki ñaan ba pare bëgg ma. saa bu ma gisee. Mhm. lu baax lay waxtaan ak man. dëgg la lu ma jëmale kanam lay waxtaan ak man. Mhm. di nuyu Baye Xaalit Tama mi nga xamante ne mooy borom sàkkal séeri Nogay. waaw nekk sama xarit. Mhm. di nuyu Cheikh. Cheikh borom Faas. su ma rakk la sama lépp la ndax ñoo bokk yaay. Xaalit Tama yàlla def na képp ku gis galas bongo da nga koy gis. dëgg la mooy sama loxo gauche. ndeysaan. mooy borom Tama bi nga gis. ñoom nga àndal ni ànd ak équipe bi ànd ak Cheikh. kon tey. affaire nii la mën a demee. mais mbéy daal loo ci mën a dégg mooy seeku siiw. métti na de. métti na. métti na de waaye yàlla na yàlla doole xolu muñ rek. xolu muñ yàlla baax na yàlla bëri na sutura. te bu ngeen demee nag ngeen yem ci dañ leen a a topp. te yéenay joxe ay numéro nag. wax naa ko loolu moom loolu moom yéen la waaw xam nga ñun dañuy jox suñ numéro téléphone waaw tey par exemple Galas Bongo mhm. xam Galas Bongo numéro am àdduna yëpp am nañ ko mhm. am naa ñaari numéro bokk mais benn numéro bi. waaw mooy sama numéro WhatsApp àdduna bi am nañ ko. dëgg la 77. 033. 61 40. àddina bi yëpp am nañ ko. 77. 033 61 40. waaw mooy numéro Galas Bongo ñëpp xam nañ ko mooy WhatsApp bi. waaw waaye nag ñiy gàmm ak ñiy raas jëm bokkuñu. waaw mais mbaa di xam ni ñu koy gérer yow. waaw man nag yàlla def na am naa jabar. waaw. am naa jabar ju baax waaw jabar joo xam te ni ku ma muñal la mhm. ku ma jàppale la ku sonn ci man la koo xam te ni ba dara doonagul dara maa moom ñooy ànd mhm. xam nga dama na xëy ñàkk dépense sax mu am dépense def ndeysaan xoolul lu ma am xoolul lu ma ñàkk nee na seen jikko na seen jikko la te bi ma koy bëgg ñi ko bëggoon bëri nañ mu bàyyi lépp bàyyi ñëpp ni galas bongo laa bëgg dëgg la ñu naan ko bongo maan bi boobu boobu boobu affaire yi melagul ni waaye nag ah, alhamdulilah sant yàlla sant yàlla kon ku ci foog ne dara passé na ba juum nga dara weesagul. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. ndeysaan chéri Galas Bongo. waaw. yaay Pape Modou Mouhamed. waaw maa ngi lay ziare. ñu koy ziar ñun tamit di ziar ki nga xamante ni mooy Fatou Ndaw borom New York City. Euh, di jigéen ci Idali euh, borom salon de coiffure ba tabarkalla macha allah ni ma ko waxee rek nekkul New York City rek di <laughs> enye ka plaline. waaye Fatou Ndaw dafa ñëw am jom takk ndiggam di liggéey. macha allah fa tabarkalla te ku ci xaj ku ne mu boole la ci kon Fatou Ndaw jaajëf ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye yaakaar naa ni euh, mbëggeelu léegi Thiamas nañu ñoo xamante ni sëyee nañ ci Facebook. gis nañu ñoo xamante ni séye nañ comme ni nga ko waxee ci whatsapp fa la ñuy xamantee fa la ñuy takkantee hmm. est-ce que loolu jikko yooyu dina doy caamaas waaw gis nga soxna Mbaye waaw woykat bi dafa waxul lu solo mooy ma Massamba Massamba Massamba waaw dafa jël gerteem suul soxlu waaw mu yaakaar ne lu mu tawul la waaw boobu jikko jaa jiwu d'accord boobu jikko ji ci boppam jikko ja moo jiw <laughs> wax na dëgg de or koy kii waaw mën naa génn gaam bu ma neexee du gàtt gaam. waaw bu lay neex. <laughs> sama xarit la tey kër gi la. kon naa génn gaam. Saint-Valentin ñëw dafa am léegi léegi lu mu wax ci ak célébrité. waaw. Mhm. xam bu góor bi la moo xam bu jigéen bi waaw moom ak yeneen sëy yi. mooy mhm. yam même pied d'égalité. d'accord dama laaj lu tax. lu tax xam nga ni kii kat balaa maa dugg ci moom lii la. Mhm. wala kat kii kat ambition bii la jógtee. dëgg la lii man na ko cee mën a fekk waaye lii mën na cee mën a fekk. dëgg la xam lu la fay téye. lu la fay téye ngor. Mm. muñ. Mm. xam boo yëkkati sànq xam fi doom yoo xamante ne bu ëllëgee balaa bu la waxee ñu naan ba na noonu xaar ba di ñëw. Mm. man ba may takk soxna mënu maa jënd tàngal mànt. dëgg la. mun maa jënd tàngal mànt barke Allah ji man la laay wax. dëgg la ba fii ma toog man ku ne xam ne bennoo laa bokk. bennoo maa nga benn. ji bennoo nga bokk. maa nga pour le moment. waaw xam nga ndax lan. lu tax. damaa gis ci moom lu mu gisul ci ñett ak ñeent juróom. am nga fula la ma koy séen maa koy séen ci benn mooy doy la gi tey gi bëgg sa bopp xam boo yësa daan xam ko xam ki nga nekkal war koo sagal te bëgg say mbokk gis nga maye foog ngi nit ñi dala si waat seen xel mm. xam nga muy lan waaw réseaux sociaux yi waaw bu fekkee dañ koo gën cee bëgg dañoo bëgg a jël sunu vie waaw teg ko ci réseaux sociaux yi duñ dem mm-hmm. mais des fois fa la sëy yi takkantee de. waaw waaw moo tax loo ciy gis. mais dëgg la ñaati jeeg ñaati jigéen ngeen nan fi mm. maye. Mm. muy woot muy woot mu woot moroomam nan ko euh, euh, yaasa bi lan laa ci lan laa koy toggee. Mm-hmm. kenn xam nu mu toll. parce que ci réseaux sociaux bi nga ko. takkee waaw ci réseaux bi nga ko jëlee. nji nit ñi amatul jàll jëluñu la seen doom yi tàggat ko yar ko yir ko ba bu ëllëgee mu mën a doon xam ku ne xam na ni jigéen moo mën a doon pénc waaw ku ne xam na ni jigéen bu yëg bu juree doom war nañ koo taxaw déglu mm-hmm. te soxna Maye waaw jigéen dina euh, euh, jigéen dina sëyee ci ci ñii ma la bëgg limal muy ban ak ban banal sa baaraam bu dee mën ngaa bañ benn jigéen dina sëy sëynu xar <coughs> jigéen dina sëy sëynu bëy ñaar jigéen dina sëy sëynu ginaar ñett jigéen dina sëy sëynu nag ñeent mbaam doogu ñëw juróom laa ilaaha illallaah dama bàyyi. ñëwal ma ci bu xar bi. mooy jigéen joo xamante ne nii mënta muñ xiif mënta muñ mar mënta muñ dara. jigéen balaa baax day ñëwal ma ci béy bi. <laughs> jigéen joo jeeg boo xamante ne nii da ngay wax ak moom ci biir néeg dem Pikine fekk fa wax ja. mooy béy bi. waaw ñaata yoon nga dégg dem Pikine fekk nga xam ne wax ji sa biir néeg nga ko waxee woon. ginaar gi. ji jeeg boo xamante ne nii day set ci biti tilim ci biir. te mën a teel a tëdd. man yàlla njëkk a nelaw borom këram. man yàlla bu ma wax ba jaan génn sama kii bi. ma bàyyi. xam nga euh, Mbaye foog ñoom ñu xam ni. waaw. gis nga boo juddoo fekk sa baay di naan ci ndaal yi. waaw muy ndaalu baax. waaw ndaalu wir. Mm. te wóor te mu dund ci ba su ñoree yàlla tey. waaw boo bëggee gudd fan da ngay ci ndaal yi. boo ko fa bàyyee geneen ndaal boo naan ci gis leneen. muy lu am solo. Mhm. am phénomène bu xew léegi. ci jigéen ñi laa jëm. ngeen nekk ci internet bi yéen a ngi doon gis ci internet bi kilifa noonu fe feru tàndarma. Eh ak ak ak ak feru pasi. mu ngi nii toog. coow li bari lool feru tàndarma. tàndarma fer lu mu ci. man vraiment tamit man tamit lii tamit. léegi léegi ñun suñuy feem léegi ci réseaux sociaux yi lañ koy jëlee sama classe bi nga xamante ni seen xam-xam bariwul euh, ci lañ doon jàngee bi ñu nekkee en activité ci réseaux sociaux yi ci la ñuy dugg xool da ngay xool lii ñu ne la bain intime la man bu fekkente ne man ak ni ma toll kii ma bëgg cee toog bëgg a def bain intime kii fu ma koy teg lii moom kenn mënu cee def bain intime si ci kaw chaise anglaise nga toog ci. nga ni yaa Seyda. ci kaw chaise anglaise nga koy. yaa Seyda koy bu ma ah. neexee tëral ko bu ma neexee yëkkati ko. <laughs> Eh, eh, yaa Seyda. Mm-hmm. nga ni nga ni nu mu demee. <laughs> nga koy teg ci kaw chaise bi. da nga teg ci kaw chaise bi mu tegu mu tegu bu tegoo nga nga def say bain yi nga ci war a def yëpp. après nga toog ci mën nga ci def genre euh, infusion xorom polle. Eh mën nga ci def infusion feuille de jeka. mën yàlla baax na yàlla mën si def kaat ko de mën nga si def yu bari daal yoo xam ne nii ay plante naturelle la du am ngaañ du am dara donc soxlawul gel intime yi di jóge bitim réew ak fu nekk ñu dugal ko tàngal yeeg yooyu si panier bi comme ça tu vois d'accord yëpp a ngi ci panier bi nii waaw d'accord léegi panier bi moom ngay jël lii mooy gel intime da ngay dem rek toog waaw da ngay dem rek toog su ko defee boo defee bain de vapeur mën nga def bain de siège bain de bain vapeur comme ça saxaar si dugg si kanam gi wala nga def bain de siège da nga ciy def ndox ba mu fees nga toog si pendant deux minutes nga man la lii yaa Seyda waaw yow yow lii ah, dafa bokk jonge dafa bokk li nga xam ne nii moom la yonent fi sallallahu alayhi wasallam jàngale mu ne mu ne mu ne mu ne jigéen ñuy dugg ëllëg yow ma xiyaam aljanna mu ne mooy ñi nga xam ne nii dañoo jonge ba pare nangoo al nangoo ami doom mu ne jonge yii nag yëpp nag ci xeetu jonge la mënu cee ñàkk mhm. ah, booy dem guerre moom faaw nga yóbbu say arme te lii mënu cee ñàkk d'accord yii yëpp nekk ay xeetu yoo xam ne nii yu góor yi kii la macha allah moo nekk ni ay infusion la. yi ah, xabatu sawda la moom la bi la daan fajoo. mooy sunu yónnee salaay la daan ba mu des feebaru dee. na leer nag. gis naa fi sànq ay grains yu sew yoo xam ne ci pot pour góor ñi la moom la wax. moo nekk nii pour góor ñi. Mhm. waaw mi ngi nii daal am na yoo xam ne mënuma koo wax. ci ci pas waaw di nuyuwaale Fallou nii nag. Serigne Fallou Bongo. ndeysaan mu baax lool bëgg ma. sama euh, plateau moom yàllaa ko dogalagul. ndax activité yi nekkoon ku ne xam nañ dañoo jóge ci élection locale. dëgg pare daal di dal ci euh, match. Euh, Sénégal bi Coupe d'Afrique bi rek am nañu programme ak yooyu ñu ne ci di ci liggéey. Mm-hmm. waaye yow da ngay toog ci sama plateau ndax nit ku baax nga. Mm-hmm. ku ñàkk ñaan. Mm-hmm. keroog bu may def sama anniversaire sa taxawaay gis naa ko ci. nga mën ni ngay def nag lool macha allah Sénégal bëgg la àdduna bëgg. wallaahi yaa say ma gis ci say as gis loo xam ne dafa dafa dafa intéressant mhm. muy filigré fenugrec mhm. mhm. mu mu mu bari lu muy faj lool lool mu bari lu muy faj day digéré moom fenugrec moom mais man bu leen ma fi waxal ay day faj ak day nangam ak yooyu moom xam nga lu ma bëgg uh-huh. lu ma bëgg xam lii ñun bu njëkk ba daawuñu ko gis bu njëkk ba dafa nekkoon loo xamante ni ci biir la nekkoon ah, mais léegi bu ñu demee ba ci oh. léegi réseaux sociaux ah ñu génn ay tàngal ak ay grain tàndarma joxe numéro kii def feru tàndarma daal di def feru passi man man ñu bari ni ñu ko doon kaas nag bëggoon naa nga ñëwal ma ci loolu ak lan moo tax léegi yëf yi ñu di ko dugal ci réseaux sociaux di ko fa jaay mbayang euh, pour mbëggeel rek yaa Seyda dafa wax lu am solo waaw defe naa ni suñu boroom mm. suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yaa Seyda defe naa ne lépp loo xam ne da koy bëggalee sa borom kër te doo ko lor rek dagan hmm. na waaw mais bu jëkk ba daf daan nëbbatu ci biir waaw chaque jour nag waaw ñuy ñuy ñuy ñuy topp suñuy bànneexu ñuy toog rek hmm. di daw ci ñoom rek hmm. bëgg leen di jommal rek bëgg leen ñu teg toog rek toog mais est-ce que mën na leen téye ci kër ñëw waaw ñoom téye leen yombul waaw téye leen ak a jafe feem bu ne di ko def di nga dugal tànk di nga dugal loxo di nga mhm. dugal bopp waaye bu ñu bëggee génn dañuy mel ni mhm. fitt gumbar sànni kenn mënalu leen kenn mënu leen tey waaw caamas tàndarma waaw doon lu lu baax waaw soo déggee feru tàndarma xam nga feru tàndarma kenn du takk tàndarma di tëdd ak moom ah mbóot yi dafa lañ lay fekk moom ci ak ak ak yenn yi kenn du takk tàndarma ci sa ndigg waaw boo gisee nag nga ni feru tàndarma defar nga ko mu yor forme fer forme fer ndax tey jii kurus boo dindee seede bi. mën nga koo takk sa digg dootul do waaw kay. dëgg la tànnar ma pour bégal ko rek la. ngeen bégalante ay feem rek léeg-léeg nga jël benn doom waaw daa di ko koy sexal léeg-léeg mu gis ko daa ci dagg benn doom sex ko xelam daa dellu si nga naxtaan ko ci tàndarma ji yow loolu nga ci jublu woon man loolu laa ci jublu ci laa ci jublu it ci paste bi tàndarma euh, euh, Thiamas après di nga ma ñëwoon ndax di nga ma ci tàndarma <laughs> mbokk ngi ci ligne bi ñu jël ko rapidement asalaamaaleykum waaleykum salaam sama sëriñ ñu ngi lay ziar waaw maa ngi leen di leen baax a baax. Eh, eh, tur bi ak fooy wootee. man maa ngi tudd Mamadou Diouf maa ngi leen di diwaan di Richard Toll. ay ca Omar yow rek la ñuy déglu. non Mamadou Diouf laa doon Mamadou Diouf. waaw man nag eh, yaakaar naa moom moo tax ma woote quoi démb damaa gis publication bi rek te maa moom. Mm-hmm. ku mu mënti jaar naa dégg man nii nii ko quoi. Mamadou yëkkatil kàddu gi tuuti ñu gën la dégg dafa desee leer. dama waaw waaw réseau bi nag moo neexul nag fii moom réseau bi moo neexul quoi. dëgg la. ma ne kii rek kii rek laa boole jaar euh, ziar mam Ndongo. waaw mi ah, maa ngi fi maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah maa bu baax. waaw sant yàlla bu baax a baax. ah yàlla na suñu borom xeeb bëri lépp. amiin amiin émission rafetlu. jërëjëf di ziar bi nekk di plateau bi yëpp. jërëjëf jërëjëf ak aussi ñëpp ñi nga xamante ne ay auditeurs lañu wala téléspectateurs yoo xamante ne ñu déglu la 2STV. macha allah jërëjëf. aussi di la ñaanal jàmm yow tamit. jërëjëf jërëjëf Mamadou. ndaxte tey nag aussi sax amu am. oh dagg na <laughs> Mamadou ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ziar itam. Euh, yaayu Idali borom social bi ñu di ko wax moom tamit euh, ami nekk fële ca Sweden mm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama gambiyeen ya fa nekk yëpp di leen kontaane waaye di kontaane ci Ndeye Astou Aaj ak Koura Sarr xaritam ñu nga foofu ca New York City euh, ma ñëw caamas ci yéen góor ñi dégg naa da ngeen di nangu yéen ñu di leen mënote <laughs> di leen saxal ay tàndarma ak ay pasti mm. ndax loolu mooy mooy mooy mbëggeelu tey ndax loolu moo leen di téye ci kër gi soxna Mbaye. waaw. man caam laa la. waaw. <clears throat> bul bougé. waaw man du ma teree bougé man. <laughs> dama yor samay activité war a man man caam. kon bul bougé du la kii. Euh, euh, waxoon ma sax bul bougé. waaw wutal kaay daju xool. <laughs> ko fay dem. damay liggéey yi. waaw bokkul. damay liggéey. liggéey bokkul ak heure heure toog sa soxna jot nga war a toog moom moog liggéey bokkuñu. dana ñëw de dëgg sa micro. très bien. waaw waaw. foog ñu delluwaat mbuum ci boy boy bi. mooy gis nga problème yi ci réew mi. waaw arsenal yii ko fii indi. Ah. problème yi ci réew mi. arsenal yii ko fi indi. jàmm rek. da ngay xëy liggéey sa fit naan tëf ba yàqamtoo ba boobu fu mu ne vingt jot na. sa fit na rës yëgg sa kër. ndax la ndax da nga fay fekk loo xamante ne ne ba la koy composé dajale la ko bu la ko defee. c'est le contraire da ngay yàqamtee ñibbi yaa koy gën a gaaw. te da nekk di góorgóorlu rek doo ko ànd sam xel. doo ko àndal sam xel foog ñuy dellu si bàyyi bàyyi nit ñu nëpp lu. te xam ne diggante góor ak jigéen billaahi laps de temps mhm. te ñoom lu ñu gën a jëm mag di gën a wuti ay bagages dañu wóolootul seen doole wala qu'est-ce qui se passe. xam nga ndax lan. lu tax dina fi gis xale yoo xamante ni nii ba xale yii. waaw 16 ans 17 ans gi. akamale na la léeg-léeg ñu romb la façon xeetu jiin goo xamante ni nii mara détaillé. waaw seen fit dem. mais caa caa caa waaye la ma doon wax xam nga ah, ñëwaat na Faasa yow xale jigéen ñi ñoo ko daa ko wut xale ndaw yi ñoo ko daa ko wut caamaas mais lii du pour caamaas du pour loolu nañu woon seen bopp mbayal non du loolu ci géej gi di nappi waaw dem ba bërki dem ba léegi meenam gaal goo koy def mbayal bis boo ko xaree ne da ngay an xottab gaal dem boo fi diigee yaa ko yóbbee sa bopp mbayal 88 628 14 13 tey jii 18 heures lañ jëm mbokk asalaamaaleykum lii la maaleykum salaam euh, ñu ngi lay ziar bu baax mbokk macha allah mbiya tabaarkalla na nga defal coon fooy wootee. man de maa ngi wootee Fouta man maa woote woon léegi. yaa ngi wootee Fouta. waaw fu ñuy wax Tour de Galle rapidement yow rek la ñuy déglu. waaw ma ne. waaw. seen waxtaan bi neex na lool. jërëjëf. di yeete. jërëjëf. di jàngale lu lu bare tamit. merci beaucoup. macha allah si wàllu sëy yi ngeen di wax léegi. léegi yéen xale yi ni nga xamante ni noonu la ñuy sëyee fii Dakar. waaw man man mi di wax man mi di yow léegi sëy yi sa yi nu dund léegi. waaw ak sëy yu mag yi njëkk yi bokkul. bokkul. boobu mag yi na yàlla baal. waaw sëy yi paase. waaw sa amee sa amul kenn da xam ko am am amul den lay may sa jabar nga nekk ak moom. dëgg la. mbag yi tamit mag yi tamit ñoo koy yor. dëgg la. <laughs> mu ngi noonu nee na bu njëkk ba euh, sëy yi danga daan dem rek ñu may la duñu xool ci lan nga am ak yooyu mhm. mais jamono di dox mais caamaas ba tey itam ba tey ci wàllu mbëggeel spécial Saint-Valentin la ñuy wax ci biir kër gi mhm. foog mu ànd ak yi euh, da ngeen di nangu ñu di leen mënote mënote kun ci yéen nag laay wax góor ñu Sénégal yéen laay wax waaw kun ci mënote ba caabi ji riir di nga am problème dañ ci dañ lay mënote en même temps yor yet di la dóor est ce que loolu mooy loolu l'islam di ko digle ah dañ leen foo rek jëlee rek ci biir néeg bi dara nekkul ci fola rek dóor bi ah, sa jabar du yéen yéen dóor yi. Ah. <laughs> <laughs> <laughs> loolu façon de jeu la foog sa jabar dara nekku si. da ngeen di fo. waaw dara ngeen da ngeen di fo. waaw léegi bu caabi ji réeré ku ma tekki. ah caabi ñu fo dara nekku si loo xam ne yéen ñaar kese ci biir néeg bi ngeen ne raaj tëj buntu bi lu ngeen fa def dagan na loo xam ne daal yéen ñaar loo xam ne yéen ñaar kese ci biir néeg ñu tëj buntu bi keneen fekk lu dul jalla jalaalu moo leen di gis ci bët dara nekku loo def di farata dara nekku ci waaw la yokkal say point am <laughs> plaisir di am tuyaaba <laughs> sa borom kër daal dara nekku si loo def dagan na ba caabi jëreer ko nee na doo policier Pape Cheikh Diallo maa ngi koy nuyu bu baax a baax nee na jigéen ji nga xamante ni day mënatee euh, borom këram doomi alkaati lay am wala sanda wala dëgg wala dëgg mbokk asalaamaaleykum alkaati dara newu ci allo allo euh, ñu ngi lay ziar mbokk allo allo asalaamaaleykum aleykum salaam euh, tur bi naka la ak fooy wootee njaaw ma koddu Tiwaawan eh, saa Tiwaawan lay ziar bu baax a baax maa ngi lay ziar bu baax a baax te yaa fi manqué de waaw waaye nag eh, sama sama sama ñaari gaa yooyu kii wutu nañ ma fii. jeex na jeex na tàkk ay ca bisimilah. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Thiamas. maa ngi lay fay bu baax a baax yow it ci bennoo nga bokk. waaw di nuyu waa plateau bi yëpp. ndeysaan. Eh, thème bi moom am na solo. ñëw na ci waxtoom. allo. allo waa maa ngi lay dégg. waaw man ni man ñëw na ci waxtoom. ñëw na ci waxtoom. waa ñëw na ci waxtoom ndax weeru weeru février lañu nekk. dëgg la. te bu ñu nee 14 février ci la ñuy màggal li nga xam ne mooy mbëggeel. feetu mbëggeel. waaw mais yaay bay man li ma bëggoon a wax mooy. mooy man jàpp naa ni euh, weeru kii lu mu tuddati la 14 février. waaw man pour man ku bàyyi ba àgg foofu di ko soog a dundal xamoo mbëggeel. dëgg la parce que mbëggeel dafa nekk loo xam ne danga ko war di dund. tous les jours. tous les jours comme ni nga jëlee sa fleur. Mm-hmm. jëmbat ko ci sa kër heure boo xëyee arrosé ko muy gën di màgg di la bégal dëgg la sa xol di ci naat noonu la mbëggeel war a mel dëgg la ndax bari na koo xam ni tey wut na ay arsenal teg ko këram ngir bëggale ko borom këram te du saf borom këram dara dëgg la ndax dama mës a dégg ci benn borom xam-xam bu mag mu ni waaw góor bu ne bu ne jawaram may ma ndox mu sedd ma naan nee na yàq na ko yàq na ko waaw ku jigéen ci yàq na ko ndax léeg ñu tàng ndox mu sedd may la nga naan ko boo koy naan du dugg ndax kàddu ya àndal. dëgg la waaye léeg ñu jox la ndox mu tàng jën nga di ko naan mu gën a sedd glace ndax kàddu yiw ya àndal. dëgg la dëgg la. jàpp naa ni mbëggeel ci biir kër. li ko mm. war a gën a suuxat mooy wax ju yiw. wax ndànk dox ndànk. dëgg la comprendre sa borom kër borom kër gi itam. moom itamit war naa xam place su jëkkëram ci dëggal jabaram. ci dalal xelam. ci wattandiku mbedd mi ak yi xew léegi. dafa naan lool bu ñu ko defee kër gi neex. am na solo wax jàmm def jàmm. am na solo. waaw jërëjëf yaay booy. kontaan nañ bu baax a baax nuyul ma sama jeeg. tabaarkalla macha allah nga xam ne moo toogoon ba ci naaj wi ba kër gi dikk damay faral di dégg ñu ne ñuy wax ne bi mu tàngee ba mel ni fuur yow dong la waaye bi mu seddee ba mel ni glace yi ak ñëpp la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko bégale ak samay jéegi bopp Asu Njaay ndey dëcc si la ak euh, Aji Jaw mu wax lu am solo waaye nag euh, dafay ñëw ci deux côtés yi mbëggeel dafa nekk loo xamante ni toujours war nañ koy suuxat caamas euh, lu tax lu léegi du ngeen jékki-jékki sama jabar mi ngi ci kër gi toog na bëgg naa ko am na jigéen ñoo xamante ni mën nañoo ubbi seen armoire duñ fa fekk sekkit boo xam ne seen jëkkër moo ko jënd lu waral loolu. xam nga ku ci nekk ak na ngay tojee sa bopp janax. waaw. jàpp naa ni. waaw. bu nu jëlee nit. waaw ak noppam. waaw. mu jud ñu judd mu judd fa mu war a juddoo. waaw ñu bàyyi ñëpp indil la ko. Mm-hmm. kooku war nga koo téye. dëgg la. kooku war nga koo suturaal. Mm-hmm. war nga koo wodd. Mm-hmm. war nga koo dundal. war nga koo dëkkoo. dëgg la te yii amu ci benn boo xamante ne ni mën na cee manqué bàyyi boromam. te li lii nga xamante ni moom nga war la moom. waaw war nga koo mën a def la vie de tous les jours. Mm. man xaaruma ni damay bàyyi ba 14 février ma dem sangu yenu benn tis yi wala ma yenu or wala ma yenu dara du ko jox sama. mbaa boo ko jekkoo def ko. billaahi te la laay waxee bu ko neexee la dugg wootee barke allah ji malik bu ma liggéeyee lu ma sentir ci mbedd mi jënd ko man maa ko jënd kan laa ko jox sama soxna laa ko jox. Mm-hmm. loolu moom waxuma sax 14 février yow waaye kon kon yàlla sax 14 février la ci man. mbaa du bagage yi la lay defal moo tax. gis nga la yii. gis nga hmm. <laughs> ni yii. bu ko kii yoroon dama bett man. waaw. na na ci xale bi toog. <laughs> mais ki ko yoroon ma jaaxal. lay jaaxalee rek. galas galas non non Thiamas. yaa Seyda ma non Thiamas non non. yaa Seyda nu mu ko yoroon mu lay jaaxal rek yaa Seyda jigéen la. dëgg dëgg wala muuruwaay nga gis moo tax. waaw. may tuuma yaa sey daay de ak a ñoo pare. yaa sey may tuuma yaa <laughs> sey daay loolu moo ma jaaxal dañuy dañuy laaj dana ñuy sol waaye dañuy def ci biir waaw ñoom dañ lay gis nga muuru. waaw mu yaakaar ni mais. yaa Seyda jigéen la. léeg-léeg sax borom jiin tutoyé jëkkëram parce que danaan jëkkëram amul bànneex dundul ndax ki mu yor ibaadu la day muuru day def. nii waaw loolu la ku ci te fekk booba. loolu ku ci bàyyi sa xel l'apparence est trompeuse. non ku ci bàyyi sa xel di nga juum nag. galas dëgg la nee ah. naa yaa Seyda yi. mais hmm. muuraay muuraay farata la waaw jilba mais bu ñu nekkee suñu kër mooy boobu leen i wër. waaw ba guddi jot macha allah ba nga fekk leen seen i. ah ah non kii néegu ah. borom kër ah, da ngay kontaan loolu mooy yoon dañuy def ba mu baax. mooy yoon parce que jigéen lañu loolu la leen diine sant. waaw dama ko gis ci sama benn yaay Aram Ndiaye yaa sëy daala waaye noonu la koy doxale day def yu baaxam bu simbee jël baabam boo nee ko waaye yaa sëy daal lii nga soloon kon mu ne la waaw waaye du ma ko wan mbedd mi. mooy jaay arsenal yi. non xam yow arsenal yi la. gis nga ko bu ñëw fi di léer gis nga arsenal yi jommalu la. waaw kay damay ñëw galas tuuti ah. euh, damay ñëw damay ñëw ak yow ci li nga xamante ni toujours mooy euh, mbëggeel waaw Euh, gis nañ ko ci réseaux sociaux yi. Mhm. mën na réussir. Mhm. nga bëgganteek nit mu réussir ci noonu. gis nañu ko itam ci nit ki artiste bi nga gis ko bëgg ko te yàlla tax. Mhm. comme yéen seen genre yi. ci yow laay jël exemple. parce que yaa féete ndaw. waaw euh, jigéen a ngi ci mbedd mi mi ngi financé ci yow àddina ak li ci biiram. parce que lan la gis naa galas bongo. dinaa ci teg sama bakken bii lu mu ma jaral rek dinaa ko def ba mu bëgg ma far force. waaw jaral na la rek mu mu déstabiliser sa kër waaye ànd ak lu mën a xew moom na yegg si rek dugg si est-ce que mbëggeel boobu bu sincère la wala mbëggeel la boo xamante ni siiwtaange gi moo tax mu bëgg la parce que ñun jigéen itam daf ñuy dal nga gis jigéen boo xamante ni mi ngi génn ki tele mi ngi génn kii bëgg naa ko mhm. dina ma jaral lu ne ma dem ba dugg ci mhm. bu ñu demee ba ci biir jigéen bi dina découvrir ne kii du woon mbëggeel mais benn abs de temps la woon boo xamante ni rek may ki siiw jaral na la ko waaw xam nga xam nga tey xam nga tey pour nga xam ki la bëgg hmm. dafa méttee xam quoi. maa ilaaha illallaah. muy góor ak jigéen day méttee xam quoi day méttee xam mais man yàlla dimbali ne ma. waaw avant ñu may xam si bongo yi avant may siiw. waaw am naa jabar. waaw mu sama bongo dama ko doon jël dem sama kër jabar boobu takkaguma ko. waaw fa doon accordé bongo yi di foo di tëggantu di woyantu. d'accord bi may daaj bongo yi si kanamam la. d'accord a gisee ba am sa coppati. non boobu ñu ngi ñu ngi nekk ma ak moom. Mm-hmm. ah boobu yaa ngi koy bëgg. waa ci kaw loolu. Mm-hmm. si la ma affaire yi ma koy foowee nag mais dama na ñëw seen kër ndeysaan yaayam yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana su ma ñëwee si kër gi foofu mhm. damay toog su ma ñëwee mère bi dafa ma bëggoon dafa may jox ma lekk dafa may jox ma naan di ma defal lépp mhm. Mhm. bongo bi fa ko doon daaj di ko tëj ñaari tali mais ku la daboon tey jii jigéen pare pour ñëw jox la waru gar sax yow waaw ne la soxlaw ma dara yow del ñëw di ma jox ñaari fan rek parce que lan la <laughs> galas bongo siiw na may sëyeeg moom jaral na ma ko bu nit ñëwoon wax la loolu mbëggeel boobu noo koy loo koy wax boo fi daw res nag. non mbay est-ce am sax. non non mbay non non non en toute franchise. non en toute franchise est-ce que amagul. mbay ak loolu ñoom loolu la bari na fi a koy dimbali est-ce que ah, amagul. Ah, ah, bari na fi sax non non. est que amagul ku ñëw koo xamante ni nee na la buum gi rek. yow bàyyil may def lépp di jënd ay basin di jënd ay kii nga dem naan soxna si non sama benn fans moo ma yónnee li fekk booba. moom am na lu muy dox est-ce que loolu amagul. non man man. si ma dugg baaxul non man bu bu. yow kañ nga ma sa dër yow kañ nga dër. ma ma ma ma ma ma ma parce que dañ ma déglu caawa parce que ma déglu. waaw maa ngi def dafa di wax fee. parce que foofu dañ ma déglu. tey nga bàyyi foofu tuuti na par rapport non non mais xale yaa ngi lay topp nag quand waaw ku ma topp xëy na peut-être a ñàkk. wax daan wax dëgg sa la. parce que nit mun na la gis bëgg la bëgg la boppam. loolu dafay am. nit mun na la gis bëgg la boppam loolu day am. loolu mu du mën a ñàkk. mais du la taxa doya dal wala mu tax laa euh, ñàkkal fayda ki nga xamante ni ba dara dul dara moo fa nekkoon. Mbayang. man loolu laa bëgg a dégg li ma bëgg li ma bëgg a dégg. waaw tey na nga dégg ko ba dégg pilisam. waaw ki nga xamante ni moo fi nekkoon bi dara doonagul dara. dëgg la man sama jabar. waaw sama jabar. waaw mi ngi may seetaan. waaw jàppeetuma ko jabar yaay laa ko def. merci macha allah xam nga lu tax. lu tax. Oh. dërëtul de. moom non ah, non non non dafay leer. sama jabar jàppeetuma ko jabar yaay laa ko def. merci beaucoup ndax sama yaay fu ma doon taxaw. Mm. moom moom fay taxaw. tey su ma gëstoo sama bët xonk wala dara. Mm. su ma gëstoo moom laay gis. da ngaa gore rek barke xaadim rasul ma yaakaar. rawal jigéen bu baax la. ndeysaan jigéen bu mën a muñ la. macha ndax man ku ma maîtriser dama bëri caprice. waaw def def. démb rek 3 heures matin laa tëdd. ci xew laa fanaan. yaa may dégg. Mhm. kon kooku ngay nekkal noonu. seega nag des fois. neex si xolam. Mhm. mun na dégg ñu ne ko galasa mhm. ngi fi. wala galasa ngi fee. wala galasa ngi wala galasa ngi fee mais damay xam li ma xam. dëgg la. xam naa daal man li ma bugg si moom. mooy ak sama yéene si moom. jëndal ko kër. yàlla ko yàlla mottali yóbbu ko màkka. jëndal ko kër ak kat kat waaw ñëw. barke xam bëgg naa bëgg naa mooy sama yéene si moom ndax boo déggee ma la loolu. waaw jigéen nekk na ci kër góorgóorlu ba sonn te déggul lii. dëgg la. nekk jàmbaar. dëgg la te déggul lii galas wax tey. dëgg la kon lii soo ko waxee man damay kontaan ci yow. te du man rek ñu bëri naw nañ la tey. moo ko defee barke Sëñ Tuubaa moo ko def la koo def te doo ko wax. mi na solo ko def ba pare bañ a am ku toog di waxal soxnaam lu baax. kooku baax d'accord. wallaahi ba tey itam euh, ñu ñëwul ci leneen loo xamante ni bari na ci lu muy yàq mbëggeel mm-hmm. man nag kii moom maa ngi koy xool rek daa jommi dama ko mës a gis di Casamance dafa waar moom. est-ce que xam nga li duuf lépp li duuf ci nag bi xajul ci cin li. man gis naa yaa say yi na waar yaa say daal li nga a yor fee yaa say yi nga yor fee bëgg naa yaa say daal dangay gaaw a fàtte joxe sa numéro parce que bi xam naa ni ñàkkul ñu ko bëgg te bii moom Eh, bii day moom bu fekkoon ne woon ma nekk lutteur en activité. waaw eh. <laughs> dinaa mën a mbapat waaye dama nekkatul en activité. kon kon maa ah, gloire. laa léegi mbapat mi baax na baax na damay mag <laughs> day def yëfi mag. pour ku ko soxla. waaw 78 la 243 31 31. 78 243. 31 31 31. caa même boo duggee defee xumute dagan rek da daal di gis ay bagages yëpp. xam naa ni bii roqee laa koy jox ndax moom moo ko tal. <laughs> wala na fi ndax ñoom ñoo ko tal. man nag fi nekk nii jaay pañe astuce la. ah pañe astuce pañe bi lu ci nekk moom. ay ay karité manteng ci ay ceeb ay poudre glace huile massage ay purgeur. men waaw ay 3 jours ceeb yi. la mooy 3 jours. nii nii ci cat li. 3 jours lan mooy lan dañ koy baxal di ko naan day def lu baree bari ci jigéen. lu tax yow nga bëgg naturel. waa ndax dafa baax doo ci gis effet secondaire moo tax d'accord euh, léegi am na mbuus mu nekk fii <laughs> pour roqee mën a teey tegal ma fii mbuus mi pour ma pare dugal ci sama pañe voilà euh, ma ñëwaat ci leneen loo xamante ni ci xeetu mbëggeel léegi moom la ñuy jeexalee parce que 18 heures moins la ñu war a jeexal uh-huh. euh, macha allah tey dañu débordeel émission bi ndax ni mu demee su ko defee gars yi galas yi ñoom ñooy ñuy kiiwal ñoom ñooy ah, daal di àndandoog ñun daal ñuy tëjal uh-huh. may remercier bu baax a baax sama jeeg ba Assou Ndiaye uh-huh. la macha allah moo jaar fii ngeen am ko ci 77 372 26 78. mbub mi ginnaaw gi rek tabarkàlla ëpp na. Mm-hmm. Euh, waaye nag dinaa ñëw ci ki ko ñaw euh, ñàkk a wax dëgg léegi ngeen jeexaleel ma foofu duo bi. Mm-hmm. góor waxatul dëgg jigéen jigéen waxatul dëgg góor. nga dem ba jigéen ji découvrir ne yow mii kat lii nga koy wax du dëgg. Mm-hmm. te bu fekkente ni da nga mel ni man bu ma découvrir ñaari wax lu dul dëgg rek mooy pare naa ci yow. lu tax léegi mbëggeel léegi kenn dootu ci waxante dëgg. parce que dëgg yi ndax lan. ndax lan la ko song ma dul dëgg. d'accord. départ ba. moo dul dëgg moo dul dëgg maa la dégg départ ba bu amul dëgg waaw buy terminer ci dëgg lay terminer mhm. waaye boo gisee mu am problème mooy su fanu départ ñoom ñaar moo dul dëgg dëgg moo lalu ko dëgg la ci ñoom ñaar am ciy fen sa euh, am na ko ci wax lu dul dëgg sa morom mhm. dal des fois nga dem fenn ba pare ñëw ne sa jabar sa jabar ne la foo demoon nga ne ko bërëb sàngam laa demoon wala nga ne ko bërëb sàngam laa jëm te fekk na booba demoo fa moom mu xam ne yow jëmoo foofu mais mu dëgg ci tànkam est-ce que dina yam euh, euh, Mbaye xam naa ne nag mii na góor waaw loolooy dëgg. mais nag laaj la bu ma lay laaj. bu ma lay laaj waaye nag dama koy laaj pour beneen mbokk mi nga xamante ni mi ngi mm. seetaan. léegi-léegi sax nga dem xew nag wax dëgg yàlla dem fenn. Mm-hmm. di ñibbi daal di barastiku waale barastiku boobu boo demee doo ko wax. Mm-hmm. fi nga demoon rek. waaw xam am ci yéen. waaw xam lu waral lool. <laughs> lu waral lool. Euh, mbir bu ci nekk ak ku ko tal. dëgg la. gis nga euh, responsable. Mm-hmm. responsable. nekkul nit a koy jël def ko nit. waaye nit a koy def boppam. dëgg la. xam nga li damay dégg ñu naan doom yi ngi rawante ci ci wayjur yi. Mm-hmm. gis nga mbay xam nga lu gën a am importance ci doomu aadama. mooy boo bëggee sa jabar naw la. Mm-hmm. boo bëggee say doom naw la. Mm-hmm. góor rek am fit ne samay doom gis ni may doxee. damaa bëgg ngeen koy doxee. kon bu ko doxee rek kon doxin bu baax la. dëgg la. waaye bu demee ba góor mënu ko wax ay njabootam rek mi ngi ci loo xamante ni maara dee taal. dëgg la aw mun fu may nekk sama àddina. te sama jabar du dëgg la. bañ naa ko sax su ma waree dem fenn. Mm. sama doom. Mm-hmm. dama ko doon bis sangam di fàttali ma heure sangam dama war a am plateau wala dama war a dem fenn. dëgg la. yàlla seen moom mooy papa seen affaire bi du tey. Mm. dëgg la ndeysaan. sànq ba ma lay woo maa ngi nelaw. waaw. ndax démb maa ngi woon plateau. dëgg la ba ma maa ngi nelaw. waaw billaahi moo ma yee. papa seen heure bi léegi léegi mu jot. Mm. ndeysaan xam lu war a lool. lu war a lool ni ma gis ni may doxee ak sama soxna. waaw laay doxee ak samay njaboot. ndeysaan parce que da nga leen di wax dëgg. bis bu ma bis bu ma at ci àddina mm. mu jaral ma ma wax lu dul dëgg wala ma nekk feneen foo xamante ni na war nar faa def naka su dul noonu. Mm. foofu ma fa nekk yàlla ma fa yàlla toroxal. xam nga la ndax la rus naa def lu may xeebee. Mm-hmm. te loolu xeebaange la. xeebaange donc la indi. Ah. sànq dama laa wax lu am solo ne la départ. waaw lépp loo gis. ca départ ba la dëgg la. ca départ ba départ ba la. bu mm-hmm. départ ba see jàppal ni moom yàqu nga. dëgg la surtout nag ñaari way denja dencante. waaw. li ci jiitu mooy waaw dëggu dëggu euh, dëggu wax dëgg sa soxna mhm. loo ciy wax wala sa sa soxna wax dëgg borom këram parce que jigéen ñi tam ñoom it ñoo dax ma ma ma su ma nga baal ma mais leen wax lépp sax àdduna tukki ñii mais mais ñii des leen di nëbb lenn li ñoo ñoo ñoom ñu fiy xool ay say ñoom ñu fiy lire seen i message ñoom ñi tuy déglu toog di déglu seen whatsapp fekk naa koo xamante ni billaahi jëkkër jaa ngi nelaw damaa ñëw di ko <laughs> fekk jabar ji toog ci escalier yi jàpp wa xam naa ne téléphone jëkkër ji la. waaw maa ngi fa teg nag di déglu waa léegi bu déggul musiba moom fu mu jëm. Mm-hmm. sonal boppam dafa am yoo xamante ni yow yaa koy charge mm-hmm. yow yaa koy cherché déedéet. Mm-hmm. gis nga lin la lu lu ko. dëgg la ba gis loola. mais boo ko cherché gis ko. wala gis lu méngoo loola. rapidement parce que sama gars yi bëgg naa ñu duggaat ci cinq minutes <laughs> rapidement galas non wax dëgg. waaw war na si bépp diggante. dëgg la. wax dëgg mais est-ce que est-ce que dëgg yëpp la wax tamit des ah, damay laaj quoi ba xam ndax dëgg yëpp la wax. ah déedéet léeg nga wàññi nag maa ngi dem bërëb sàngam sa soxna amul nëbboo. ok damay laaj quoi su may dem programme damay ma demoon programme damay liggéey. waaw su may liggéey dama naan maa ngi dem liggéey. kon su may tëgg dama naan maa ngi tëgg. mais noonu la fa demee ah. léeg-léeg nga jàdd doo ko ko wax foo xam ne mun munu koo bañ a daal fan laa jàdd jëm Mbayang gis nga nag yow mii moom mii daaw du doy waar jàdd jëm moom mii moom mii moom moom wax doy euh, dañu wax ne euh, dëgg wax ma yaa daa bokk na ci ne tey jii yow sa jëkkër da woo téléphone mhm. wax la ne la maa ngi euh, nga ne ko damay génn damay dem marché wala sama yaay de ma woolu léegi wala sama sœur ba dem seeti mhm. fekk booba demoo yaa ngi dem seeti borom mbaar mu gàtt mi ci bopp koñ bi te lal ba sa xam nga loolu it boobu moom du ngeen ko wax mhm. bu ngeen ñëwee indi a wis indi li ko defee déjjati yëfi yàq nit ki complètement jaaral leen foofu ngeen tàggoo euh, yaa sayda nee na subhanallah moom yii la gëm naturel <laughs> mbayang kon liñ doon wax rek waaw yaakaar naa ni waaw mu gaaw tuuti parce que temps baa ngi dem léegi waaw waaye xale yu góor yi léegi seeni téléphone dañ koy sanguwaale ci seeni mbàjj ba bër set war seeni jabar ginnaaw waaw ngay jékki-jékki dégg rug-rug day am message yaay ñëw waaw day am benn ci ñoom beneen bi topp mooy man yaakaar naa ni lu la sa doole mayul ak sa jom mm. ak sa feem ak sa jonge ak sa cet ak sa mm. mën bis mm. sëriñ du la ko may sëriñ du la ko may déedéet roqoya temps bi jeex na tàkk ngeen dugalaat kenn ñu jël ko 30 secondes mbokk asalaamaaleykum allo voilà lu la jonge mayewul euh, sëriñ du la ko may mhm. tabaarkalla macha allah mhm. waaye nag yaa ngi toog di xalaat loolu am na saay-saay boo xamante ni moom loolu rek moo ko tax a jóg ba ngay gersu di laajte nag ndax sama waa ji ndax est-ce que moom laa nekkal réellement mhm. doyaluñu ñoom te yéen ñëpp duñu mës a doyal waaye nañu bu mu def loo defut yow looy tàggoo <clears throat> li may tàggoo mooy di nuyu Sénégal tàggoo boo xamante ni dem dellusi waat lay doon ne lii <laughs> nga xamante ne xam naa classement rek a ko fi tax a <laughs> non sama xarit la. <laughs> di ko nuyu. di sant ñëpp allo oh, nañ ñu ko baal euh, mbokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. 10 laa la may temps bi jeex na tàkk. walaay jeex na Thiam man la Adja Mbaye. Mbaye. mu alaaji Bekkaay maa ngi lay ziar. Mbaye maa ngi lay delloo ziar bu baax ma di jàmbur. bilaay na naa la. maa la raw naka laa fi mbaa mu ci jàmm. ñëpp a ngi ci jàmm béggee bu baax émission bi. jërëjëf jërëjëf Mbaye. waaye tey nag da sama doom. ndeysaan wax na dëgg de. ki ci njëkk mooy Galas Bongo ba pare. waaw maa ngi moom a dëkk beneen bi ci des kii Daba Ba mi nga invité sama doomi bopp la maa ngi yaayam dem ci suuf moo tàqale. ndeysaan. muy sama doom mu jur ko muy xale bu baax bu am jom. bu nangoo sëy ndeysaan ndeysaan. ma koy ñaanal yàlla fu mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yegg. allahumma amiin allahumma amiin moo ñooñu toog ci plateau bi yëpp nag. incha allah macha allah Mbaye sama xol dafa sedd guy. maa gën a sedd xol parce que dama laa nam yow yam ci man benn la. dama laa nam xam naa ne maa ngi Modou Mbaye yam ci yow Mbaye. ak man mi ndeysaan bu baax. ak man la bëggee nag di la ñaanal wér gu baree baree baree. allahumma amiin Mbaye. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa naa ci galas kontaan ni ci plateau bi ñëpp kontaan naa jërëjëf ñoo gën a kontaan Mbaye bi suñu kër la jërëjëf sama doom jooju nag bàyyi naa yàlla yàlla na ko yàlla sàmm dénk naa ko sunu borom allahumma amiin insha allah ak mbooloo mi jullit jërëjëf jërëjëf Mbaye Adja Mbaye Mbaye bu Bekaay mbay ñu koy nuyu bu baax di ko kontaane muy ku baax Adja Mbaye eh, jëkkëram mook jëkkëram xaw ma ko gën waaw gis nga sama yaay Mbaye mi dugg nii waaw billaahi wallaahi wa taalaahi nit ku baax la. rawal nit ku baax la ñit ku bëgg njaboot la. Mhm. ku mu gis daf la leen comme doomam Adja mbaaye waaw Adja moo tax ma xam ajaratu Marème Ndiaye mu 2STV fii. ndeysaan ndax keroog ba ñuy ba ñuy takk jeebaa. waaw. Mbaye moo ma woo. yóbbu la yóbbu ma kër Alaaji Ndiaye si Marème Ndiaye présenté ma ko. yóbbu na la ci ku baax. barke Xaadimu Rasuul boobu ba léegi nag Adja Marème bàyyiwu ma. déedéet fu ma gis di ma tëral ci wërsëgam. waaw di ma jàppale. te loolu bu amee ginnaaw yàlla. mbaay laa koy gërëma yaayu Modou Mbaye yàlla nga gudd fan. ku iñaanul ne yàlla ak diw Mbaye day. Euh, damaa ci ay loxoom waaw. moo sama ba ma lay invité xaw ma woon sax noonu ngeen bokkee. mook sama yaay. ndeysaan dee moo leen tàqale. macha allah sama yaay fekke lépp mu lekk fekke sama lépp moom. ndeysaan. maaya këram lu fa xew day génn sama cër envoyé ko même bu ma ñëwul. ndeysaan. nee na ma léegi yaa Mourou Mbaye laa laa yemale. waaw xam naa ci dara. waaw. mënumaa wax ci moom lépp. jërëjëf. lu la may defal bëgg ma taxawu ma jooyu ma sama yaay benn yoon ndax maaya mhm. yal na yàlla guddal fan. jërëjëf ay ay yaa Seyda tàggool. waaw dañuy tàggoo fi rek xam naa. tàggoo mhm. bu dul tàggoo ba beneen yeneen incha allah incha allah li may tëjee rek mooy comme li nga wax léegi mm-hmm. nit ci boppam même bu dul sëy sax nit en personne muy góor di jigéen mag ndaw dafay dëggu waaw nit dafay dëgg mel ni abu Aboubacar Saddeex waaw euh, xaritu yonent bi sallallahu alayhi sa xam dafa looloo indi Saddeex bi ndax dafa dëgg wóor la ba ñu ba ñu koy dàqantalee tur boobu naan ku wóor kaa ngoog ku dëgg kaa ngoog kon macha allah kon yàlla nañu yàlla euh, euh, may ñu mel noonu jërëjëf kon ñuy tàggoo fii di nuyu Thiamas macha allah dama koy suivre si plateau yi ndax dafa bokk ci ant stress yi nga xam ne ni dañoo ne ci dëkk bi macha allah boo leen seetaanee da ngay ree di nuyu galas bu baax di nuyu plateau bi yëpp di nuyu ñi ci ginnaaw. tamit allah ñoom nuyu Atia Ndongo sama mag. macha allah ba muy ñëw daf maa gunge ba ca mbedd ma. <laughs> muy nuyu ñëpp daal xam naa su ma fi nekkee di lim. da ngay juum du ñu matal sax waaye maa ngi nuyu ñëpp daal àdduna yëpp Sénégal àdduna wërngal képp. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax salaamaaleykum damaa solo la su ma fi toogee ba dem te nuyu ma ko. du rafet muy bitiku mm-hmm. waaye nag sama waa ji Fatou Galo Ndiaye madame kan moo ma indi bi di nuyu Mareetu Kebe mhm. chéri Ahmed Ka jërëjëf ñëpp aji Ndiaye Fota bàyyiwuma kenn euh. di nuyu ki nga xamante nag mooy sama buntu ci Serigne Saliou moom na man xam naa maa ngi koy nuyu moo ma njëkk a jàpp ci loxo wan ma Serigne Saliou maa ngi koy nuyu yàlla na yàlla guddal fanam 78 78 258 97 76 78 258 97 76 moom ngay amee Elou Thiam mu defal la tunique bu baax bi ginnaaw gi mu wàcceel la ko ba mu dégg jàmm tabarkalla macha allah mu nga fële ci diwaanu tëngeej waaye sama jeeg dagg tisi bi may nuyu di ziar bu baax a baax rakk ji ki nga xamante ni moom mooy jëmb caam maa koy nuyu bu baax di nuyu mag ji le frère Momar ak njabootu caameen gépp la euh, bala yow doo yow yaay mujjee tàggoo euh, kii mooy tàggoo caamas caamas tàggul say gaa waaw mais Mbaye dañuy sant yàlla bu baax euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëmaat di fi wax ne bu fekkee dañ fee wax loo xamante ne nii wax dëgg yàlla dafa am lu ñu jeune. waxoo dara lu ay na xam naa ne sunu moo toll noonu. Mhm. waaye jubluwuñ ci loolu. luñ mhm. jublu mooy fexe ba mhm. Sénégal gépp bég. dëgg la ndax lu ñu jub li ñu dund ci mbégte mi fi fan yii rek. jar na ku ci nekk sant yàlla bu baax ci yonent bi. dëgg la di invité di di gërëm nag sunu sama jigéen ñi. Euh, wax dëgg yàlla euh, euh, lu jo lu jóge ci xol loo gis ci xol lay dellu. dëgg la man. yaa sayda bi dama ko fonk. dëgg la <laughs> dafa wax sànq am fu mu dugg. Mhm. mais li ko yàq fi mu génn. <laughs> fi mu génn dafa génn foo xamante ne nii fii li bëgg naa bu ñu génnee lii moom nga gën ko expliquer mu gën a leer chambre. yéem na ma benn problème galas euh, bi sama xarit la. waaw dëgg la yàlla seede na ko. waaw waxuma xaritantoo. waaw dëgg la waaw dañuy dañuy. waxtaan du sax daje programme. waaw. te ba ma leen di dajale fii yëgoowu leen. du ñu daje programme. dëgg la dëgg la waaye dañuy waxtaane loo xamante ne nii. Ah. nit dul xam. dëgg la ak Alaaji Malick si ci ci ay mbir yoo xamante ne ji sunu aar bi la. am na solo am na solo sama jigéen bii di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal taxawaay. amiin amiin dina gërëm bu baax. man maa lay gërëm xam ni. te di nga xam ne man maa la bëgg euh, maa la bëgg ci plateau bi. man fan sa ndëmb woon laa. ndeysaan maay numéro un. ndeysaan loolu nga ma wax yàlla seedal li may wax sama soxna mën na maa seedal. loolu nga ma wax bëri dem yàlla na nu yàlla boole defal jàmm. jërëjëf jàmm jërëjëf jàmm yàlla gën ci dugal loxoom. d'accord ci barki Serigne Babacar Sy jërëjëf kontaan nañu man maa ko bëgg pire te tabarkàlla macha allah yal nañu yàlla may li ñu bëgg rek parce que plateau yu mel ni dafay baax mm-hmm. ñu toog di ko waxtaane mm-hmm. euh, te lool la ñu xamee soxna Mbaye loolu la ñu xamee kër gi ak coow li coow li dinañ xool formule yoo xamante ni ah. yu mel ni dafay dellu si sous peu de temps mm-hmm. euh, euh, Galas ma bàyyi la nga tàggoo daal di wooc sa gars may gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp rek ci ni nga xamante ni àndoon nañ ko ak ñun jaajëfal sama invité yi ci disponibilité bi parce que yombalal ngeen ma lépp ay ca li may tàggatoo mooy maa ngi nuyu sama benn xarit. Mm-hmm. Assou Gueye. Mm-hmm. yaayu Babacar. Mm-hmm. chéri Babacar. di ko nuyu bu baax a baax. nit ku baax la. ko baax ci man la. waaw maam Jojo. waaw chéri Pape Abdou Fall. maa ngi koy nuyu. waaw Ndeye Bouye Dieye. waaw Aji Daba Mar sama jigéen ba dàkkuma mbaay yàlla jekkee àjjana. di nuyu ñi ma àndal ñëpp nag. waaw di nuyu xaaritam mi nga xam ne mooy borom sàkkal. waa waa ku doog fourchette. di nuyu Cheikh Bongo. waaw sama rakk la bëgg ma. yàlla doguma la yàlla bu la yàlla dog. waaw ñëwal. Bongo VIP ngi nii. <coughs> xale bu yëngal jamono. temps baa ngay jeex de may leen ma li ngeen may may. galas yaay suñu mag. waaw Sénégal bu ñu dindiwee Bongo. waaw galas yaa dàqu Bongo Sénégal. ndeysaan waaye boo fi dindiwee galas. waaw man Cheikh Bongo may seen baay. waaw Bongo maa ne xam nañ ko. ndeysaan numéro téléphone lii sa la. waaw du ko yab aawoo lay doon. fa yab aaw lii sa kenn du la yab aawa ngay doo aawo la lii sa aawa